boog président na mu ko defee baaxul wala boog concert mais concertation boobu noonu ce n'est pas une obligation pour le président mm-hmm. le président la République il est pas obligé de woo diw ak diw ne ko dañuy waxtaanee naka laa war a defee ah mais moom il a été élu sénégalais dañ ko fal pour lan pour mu décider mm-hmm. sénégalais dañ ko fal pour lan dañ ko fal pour mu liggéey sénégalais dañ ko fal pour tey jii ni mu apporter des choses concrètes kon est-ce que kooku noonu bu tourné woon chaque instant di tourné diw ñëwal ñu waxtaanee diw ñëw est-ce que kooku dinañ ko fan soxlawuñu ko donc dama jàpp ni nañu génn ci caaxaan yi ñu ne li gars wax nañu génn ci li ñu ne te concentré wu ci élection yi la parce nag dañoo bëgg assemblée boo xamante ni dafay am représentativité dañu bëgg assemblée boo xamante ni tey seen teewaay dafay am solo foofu noonu parce que nag opposition lañu te des fois am débat yoo xamante ni faaw mu am contradiction et c'est sa Pastef li mu wax man damay féliciter Pastef bu baax a baax parce que je pense ku am habitude de suivre ne mooy intervention yi ñuy def depuis le début li ma doon kaas lenn la il faut ay primaire maanaam léegi choix wu député waratul nekk Ousmane Sonko mooy tëju primature wala boog mu tëju bureau bu mu mënti doon bindab liste ne diw diw diw diw diw ñooy suñu candidat dem leen ngeen votel leen man ça je suis pas du tout bi ma gisee circulaire bi nga xam ne dugal nañ ko disant que ci biir collectivité yi ci biir département yi nañu toog seen biir waxtaan xool tey mati mii gis nañ ne mën nañu représenté am na xam-xam bi am na taxawaay bi am na mën-mën bi donc nañ ko proposé loolu mooy li nga xamante ni mooy tànneefu député parce que loolu li muy war a li muy li muy li muy maye mooy lan mooy waa Pikine wala bokk dëkk bu mu mënti doon mi nga xam ne ñoo tànn Mati wala ñoo tànn Serigne mm-hmm. dinañ xam nit ki ñu tànn mais aussi dinañ xam yan capacité la am te moom moomu nit ki ci boppam dina xam ne man sama waa dëkk ma tànn mais ce n'est pas un chef de parti moo ma tànn boobaa taxawaayam biir assemblée dafay am solo mm-hmm. donc loolu je félicite Pastef te di espérer aussi que ñeneen ñi si topp ñëpp mu yeneen parti politique yi mm-hmm. wala ba coalition yu mënti doon dinañ inspiré wu ci loolu parce que bu ñu bëggee assemblée boo xamante ni ay député de nation de elles-mêmes les populations elles-mêmes choisir seeni député te loolu mooy mbir mu ñu soxla te on espère en tout cas que ni ñu ko waxee noonu noonu lañ koy defee képp ku dem assemblée tamit xam ne réew mi moo la fa yóbbu d'accord très bien Maty Sànq yaa ngi koy évoqué le 27 bi nga xamante ni Pastef euh, jox na daje ak euh, askan wi ñoom ñi nga xamante ni ñooy atel itam ñi ngi prévoir benn manifestation coïncidence lañ ko mën a jàppee wala dafa am lu ñu jublu ci mbir moom c'est pas à dessein hmm. xam nga parfois euh, politique ancien système bi c'était comme ça comme par exemple euh, su ma war a def benn activité ci benn localité sëriñ moom mi nekk ci opposition bi wala moom mu nekk au dafay moom itam dem introduire benn demande d'autorisation ci même localité bi léegi nag pour éviter télescopage bi ak trouble à l'ordre public bi mhm. préfet day obligé ñaar yëpp daf koy annuler mhm. c'est un c'est c'est c'est une vieille pratique. D'accord. des des gens de de de de l'opposition de de l'opposition. mm mais euh, une chose est sûre maman ñi en fait qu'est-ce qu'ils vont dire aux Sénégalais man c'est ça mon problème parce que déception telle na mm-hmm. ci ñoo xamante ni euh, ils sont élus pour cinq ans euh, même pas six mois nga ne da nga am déception. Mm-hmm. déception sur quoi et pire encore on a vu des gens yoo xamante ni. il n'a cessé de tympaniser les gens di wax que ni wala il n'a cessé de tympaniser l'opinion disant que ni ñoom moment bi ñuy jàppal tànk Ousmane Sonko di ko xeexal ndeke moment boobu noonu Ousmane Sonko mu ngi négocier ak le régime en place d'alors mais yow mi doon taxaw di wax genre euh, kàddu yooyu noonu ci plateau télé yeeg rajo yi mhm. tey yow lañu gis nga nekk koo xam ni dem nga nga allié wu ak les gens du régime trouvez-moi l'erreur finalement qui était de connivence avec le régime évidemment xam nga Sonko dafa doon wax que ni il ne va jamais négocier avec l'épée si ab ak jaasi bis ñu teg ko ci boppam il ne va pas jamais négocier par mm-hmm. kii euh, nu mu tudd avec euh, nu mu tudd l'épée sur sa tête mm-hmm. Mm-hmm. mais yow tey dara xewagul maanaam ñi doon ñi ñi doon euh, wax que ni nguur gi fi jóge mosul def dara ci lu baax nga ko doon ŋàññe di ko xas nguur gi bi mu fi jógeek léegi def na fukki at ak ñaar bi mu fi jógeek léegi matagul juróom benn weer ñu gis la yow nga dem nga ànd ak nguur googu noonu ngir xeex nguur bi nga xamante ni yow yaa doon xeex ak moom démb ngir mu falu tey finalement on doit se poser la question à savoir ndax ñi xam nañ li nu bëgg maa ngi dégg tey suba nag benn journal naan que ni waa atel nee nan son sont contre euh, kii nii parrainage bi ñu dindi journal boobu moo waxul dëgg ah bon xanaa laaju ñu kenn. non wala. moo leen doon bloqué. bien sûr ñu bëri ci moo tax ma ne bii pas ali bi amul. <laughs> ils n'ont pas de prétexte. à la fin lan lañ bëgg. waa ñoom à la non loolu journal boo wax mu wax dëgg yàlla man moom je donne tort à ce journal la parce que mënuma gëm que ni. ku ci mel ni Pape Djibril Fall ku ci mel ni Thierno bokkum ku ci mel ni Bougane Gueye Dany dañuy taxaw ne ñoom danoo contre parenage bi ñu fi dindi alors que parrainage doon tax ñoom seeni candidature mënuñu ko valider. ci Thierno Bocoum moom état parrainage tax na moom daanaka élection kañ la ci gëj a dem est-ce que du 2019 xam nga 2017. Mm-hmm. ku ci mel ni Bougane Gueye Dany depuis 2019 saay bu waree dem élection ñu ne ko parrainage du mënoo jàll mënoo franchir l'état parenage ku ci mel ni Pape Djibril Fall ba ci kii 2022 euh, yi lan la ko kii doon xasee Amsatou Sow bi danga maa ñëw nax sàcc samay parrainage dem dugal ko pour mën a jàll. ñu ñëw ci élection présidentielle du 2024 nga ne franchir nga étape parrainage ñu dem élection yow sax daanaka voté sa bopp. Mhm. par rapport ak score bi. c'est maanaam en fait tey jëlee nii nag ñooñu ñoo regroupé wu li naan euh, des des vieillards dans le vent. Mhm. ñoom ñoo regroupé wu tey ñu ne le 27 dañuy dem manifester parce que dana am lu leen naqari lan moo leen naqari ci réew mi. ndaw lu ñoom lu leen naqari sax moom dafa neex nit ñi. dañ ko xaar le parce que parce que non gis nga euh, gis nga politicien. Euh, parfois da ngay da ngay réaliste mm. maanaam da ngay nangu ndogalu yàlla gis nga c'est pas parce que tonneau vide nga que tu dois faire trop de bruit et que tu peux attirer l'attention mm. non non maanaam euh, àdduna loo gis dafay toll ci étape fi ngay juddoo fi ngay màggee ba ni ngay nekkee phase déclin ba ni ngay périree mm. ba ci doomi aadama noonu la mel moo tax ma ne la gis nga fii les années à venir qu'il le veuille ou non Ousmane Sonko saay bu organiser élection il va gagner haut la mais ndax sympathie bi sénégalais yi am ci moom jeexagul léegi te waajur pour jeex doomi aadama nag da ngay toll foo xam ne si àdduna foofu ngay toll maanaam nit ñi dañ lay bëgg sans raison boo leen jox loo leen joxoon dagg léegi nag yéen bu fekkee da ngeen jàpp que ni parce que li may wax rek jomaay moom na sant yàlla bu baax parce que il est le seul premier il e le seul premier président boo xamante ni xam naa ko président boo xam ne duñ ko attaqué malgré que c'est lui qui prend les décrets c'est lui qui nomme c'est lui qui dogam mais il n'est jamais attaqué c'est tout le temps Sonko moom am Sonko indil ah Sonko c'est comme si il est responsable de tous les maleurs des autres ba léegi nii il n'arrive pas à le digérer n'arrive pas à l'accepter te li leen Diomaye wax rek koo doon ñaan yàlla mu nekk sa président de la république yàlla def ko mu nekk sa premier ministre da ngay fecc bay doo ripooj mm. léegi nag ñoom comme ñoom nag nanguwuñu dogal man li may ñaan yàlla rek mooy préfet bu dakaar yàlla na autoriser manifestation bi man loolu laay ñaan bu nekk sax di leen ko interdire ñu naan ay lii lan doon xee ak le droit à la manifestation c'est un droit constitutionnel peut-être voilà bu yàlla buñ ko interdire yàlla nañ ko rek autoriser bàyyi leen ñu xool à part ñoom di ñëw foofu noonu ils ne viendront jamais avec leurs nga seen coalition bii balaa ngay xamante ni seen coalition qui tient pas route maman confection liste bi déjà foofu laa bëggoon ñëw ak Serigne ndax jàpp nga ni ñoom ñi lëkkaloo dinañ tenir jusqu'au bout ci combat bi nga xam ni moom la ñu woote cest diir dire ban combat. Hmm. Hmm. xam nga fii transparence ci élection yi. comme xam nga xam nga boobu léegi tam ci plateau yi bari na ñoom ñu ngi jaxase. Hmm. tu as vu parce que ñoom man si li ma jàpp ah, ba li ma jot a yëg ba fii may toog. waxaguñ ñi coalition bi coalition la pour dem ci ay élection législative surtout ça aussi. xam nga loolu waxaguñ ko. parce que loolu bu amee. Mati souligné na lu am solo. ne serait-ce que pour l'objectivité rek et la cohérence <laughs> Bougane warul ànd ak ñoom. Mm-hmm. bu loolu amee nag laa la wax. Mm-hmm. parce que mënoo ni ñii fi ne dañu mm-hmm. rofooloo ak système bi. ak ñoom Macky Sall. kaas. nga ni dangay ànd ak ñii ci coalition politique bu war a dem ca élection. donte nag nee naa wax naa ko léegi yëgguma fenn fu ñu coalition politique la bu ñu teg pour dem élection. te mënul ne en réalité parce que bokkuñuy intérêt. donc coalition bi. ñoom ñi lëkkaloo ñoom ñi lëkkaloo bokkuñu intérêt. non non non bokkuñu sax ay objectif gis nga loolu bu ñu ko defee. fa lay yem. bugaan di nga yaakaar bugaan nag bugaan ci ni ngeen ko xamee nangu na ko taxaw si kanam. Mm. musu kon du ko nangu. Mm. lu mu jiitawul pour moom loolu baax du ko nangu loolu mooy dëgg. loolu bis bu ñu ko defee foofa la éclatement bi foofa lay yem foofa lay yem. parce que ku si nekk jàpp nga ni yaay leader bi war a nekk si kanam xalifa saal dina nangu loolu moom mi ñuy wax mooy ténor bi ak nangam ak nangam ñeneen ak ñeneen et cetera. Mm-hmm. cest à gars dañoo def comparaison entre yeewi askan wi ak ñii. Mm-hmm. ñii seen mission dafa jafe dafa difficile parce que dañoo teg un régime qui vient de s'installer un régime fort et puissant boo xam cinquante quatre pour cent des sénégalais ñoo leen teg te yàggut mm-hmm. mënunoo fi nag ci cinq mois yooyu sénégalais yi wedd nañ leen. xaju fi sax xaju fi. est-ce que aussi ci li war a xew la 17 bu ñu gisee ni Pastef dañoo am mbooloo ñoom it ñu taxawee ni ni mel. xam nga Pastef moom ooy ooy xam nga maman dafa am benn affaire bu ma yàgg théoriser Amadou Ba bu Macky Sall Amadou Ba men dafa fu ma ko nawee tuuti xam nga mooy fan dama gis ni ci ñuy opposé wu ñëpp moo ci gën a responsable ci ni ñu opposé wu. ça c'est vrai xam nga lu tax dama waxoon ni gis nga ci mois yi ñu dëgmal képp ku fi opposé wu mooy tekki sa ñàkk xam-xam. Mm-hmm. parce que mënoo ne li si dëkk bi yëpp coow li si dëkk bi yëpp en réalité ñii la gis nga boo ko